pour wax leen ne leen carrément man ci wàllu raay laay yëngu léegi bon gis nga raay ni mu mel te ñun lu ñu am ci àdduna semaine d'affaires moo ñu ko gënal ndax tey ji enclavement dëkk bi yëpp semaine de d'affaires bi moo doxut te ba pare boole ci raay bi ñuy wax ne yàqu na bon yàquwul à cent pour cent ndax ci kaw lenn. raay bi tey ji en même temps que ñun bu ñu amoon machine moom muy daw a tout le temps ñuy liggéey entretien ñun ci entretien la ñuy dund chaque jour que jëfee mën nañu xëy suba dem liggéey ci des kilomètres et des kilomètres mais nag pour bu ñu bëggee ne carrément yàq nañ pour alak bawaat bi ñun président Macky Sall lañ gënoon am yaakaar mu dimbali ñu soqali ñu suñu boîte semaine de fer bi ndax gée ngi new ñëpp ñu fi doon yëngu ah ci semaine de fer lañ basé ñun lu ñu mën a am ci àdduna semaine de fer moo ñu ko gënal ndax gengi new lool rek la lañ xam sama papa yi sama maam yi ñoom ñëpp ci Séminole lañ judd man lu ma mën a am ci àdduna semaine de fer moo ma ko gënal mais suñ demee ba jàpp boîte bi am na ñoo xam ne buñ ñëwee fii sax xool boîte bi gëj koo gis ñëwaat ci dëkk bi xoolaat ko seen bët day jooy lii ñaaw na ko ba pare président Macky Sall ñun dañoo am ci moom yaakaar. mu wutal ñu ministre boo xam ne wax ab yàlla Abdoulaye de Diallo bon am nag jàmbaar mais Abdou Ndéné Sall moom amul jàmbaar moom ndax Abdou Ndéné Sall toujours day mel ne daf ñuy kukkali keroog ñoo ngi koy déglu muy wax ci rajo mais ni mu doon waxee daal daa mel ne moom bu amoon lu ko gënal semaine de fer naax saay ba ilaa yow mi diini dootul baax Abdou Ndéné Sall moom moom bëggul état bi ci Macky Sall am dara ci biir séminaire yi te tant que semaine de fer gi doxuluñ ko. bu yeboon na bind téere ne moom bu dee moom gaayen bu na mën a waat ci yàlla ne la semino semino yi duñ ko jàppale kooku moom man man ñeme naa ko wax semino yi duñ ko jàppale ndax ñun moom lañ am fi ñuy gisee sunu teraanga wax dëgg yàlla nit ñi amee woon yaakaar ci moom suñu amul lu ñu gënal moom mu dimbali ñu ba dimbali ñu mu dimbali ñu ngir yàlla yonent bi mu seetal ñu ñu am suñu boîte bi muy soqaliku gengi new mën a eh, law jëm at yeneen dëkk yi fii ba Kidira dëkk yu bëri tëj nañ dëkk yu bëri toxu nañ bàyyi seen dëkk te semaine d'affaires ba moo fa jaaroon doon leen dimbali voyageurs yi ñi daan war di jaay lekk yi dëkk bi fii xam nga ni boo xoolee ñaata voie xoola voie yi ni mu bëri buñ demee ba actuellement ni yow dëkk bi fi amatoo vagon boo fi gis dara taxu fi ngay toog deux mois août deux mois ba deux mois et quelque doo gis dara luy riir mais te moom mu nekk président ñu amoon ci moom yaakaar waxoon ko sunu bopp nii defut lii ah wax dëgg yàlla man man amatuma ci xam-xam.